Wow. Oui. la revue des titres du euh, jour de ci qui euh, fas yéene ci ànd ak Fatima Ndiaye Fatima fan la ñu L'As quotidien fësal nataalu Bassirou Diomaye fay ci xëtëm bu njëkk di ca xamle ni moom président de la république dina amal ab jano ak taskatu euh, xibaar yi euh, samedi incha allah muy ab exercice boo xamante ne ni yéenekaay bi euh, ne du yomb waaye daf ko war a réussir keneen ku ñu gis nataalam ci journal bi mu di ki fi nekkoon njiitu xew ay jamono mu di Macky Sall ñoom waa APR nag si lu soxal téméri fan yi nga xamante ni jomay def nako ci euh, réew mi nee ak télé gu euh, metti lañu ci euh, gis tax nag mayuñu elimaanu yi dara momo Ousmane Sonko dañu dal ci kawam ba d'Italie daytaali ci lu soxal walu njàng ak njàngale yéenekaay bi di na ci jaar jaaru élève ba Thiès def baccalauréat série S1 dal day réussir ja am ko nak ci mention très bien euh, bu ñu euh, sukkandikoo ci euh, journal bi mom mi nga xamantene ni mo def boobule prouesse seize kilomètres la daan parcourir par jour ngir jàngi. réew quotidien. réew quotidien di xamlé ci xëtëm bu njëkk ni pënd ba wurégul ci coow li dox diggante agent municipaux yu mairie bu Alioune ndoy ak ambulance yi soxal opération de déguerpissement yi am ca Sandaga. Euh, fitna baa ngay euh, wëy euh, ba léegi tax bus Dakar dem dik dal day dévier trajectoire à ndoy maire ba banak ne limou def du ca yon benn yoon mu dem président de la République bassero Diomaye Faye ngir mu a ci yabi fële ci Koupentoum douane tégat na loxo cocaïne ju bari lolu ci 338 plaquettes yéenekaay bi euh, di carte des di ouvrier bi nga de de ni euh, dafa rek dal day euh, assommé ap comptable chinois be nopi, jël chimom moom lu tollook ñeenti millions lii nag mi ngi xew stade Léopold Sédar Senghor bi nga xamante et ni jamono ji ñuy àddoo ngeen di dañu fa di amal ay travaux de réhabilitation le jour bés bi le jour Fatim Ndiaye fësal nataalu Karim Meïssa Wade ci euh, xëtam bu euh, njëkk la mu ca xamle nag mooy ni parti démocratique sénégalais nee ñu euh, Karim Wade mi ngi waaja delsi ci réew mi lu moy loolu journal bi àdduna ci sortie bi nga xamante ne ni Robert Bourgi def na ko di xamle ni Amadou Ba am na lu mu ko déey Sonko ak ki nga xamante ne moo di euh, président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom Robert Bourgi ay élèves lañu woon waaye nag mësu leen dénigré ba tey ci ay kàddoom Robert Bourgi di euh, dëggal ni Pape Alé Niang seeti nag ki nga xamante ne ni moo di Amadou Ba leneen lu mu wax mooy ni Macky Sall woowu ko moo tax moom itam donte dem na Maroc jéem ko seeti. le critique à ñu euh, ñëw ci euh, journal bi euh, di critique ñoom nag jàngat lu yaatoo yaatu lañu def ci ki nga xamante ne ni moo di Doudou nekkoon na fi ay jamono ministre nekk fi itam directeur général bokk ci biir APR moom nag dogal ba mu jël mooy génn ci boobule parti di alliance de la république alliance pour la république ba noppi jël yoonu boppam li nekk ci ginnaaw boobule décision lépp ngi ci biir journal bi news euh, seeti journal bi di Dakar Presse. Euh, Dakar euh, Presse Fatim Ndiaye dal di nay adu ci kàddu yi nga xamantene ni wa Alliance pour la République daal di nañu koy ci ngir joxe sen xalat wala bok sen gis-gis ci téméri fan yi nga xamantene ni nouveau régime bi def nako ci bop réew mi ñoom nag la gis moy ni ap président de la République bo xamantene ni premier ministre bi moment moo ko rek daal day euh, confiné euh, la ñuy euh, wax nag mooy premier ministre boobee dafa mel ni dafa sol mbubbu président rek daal day taxaw lu mooy loolu nag yéenekaay bi àdduna ci xeex bi ñuy xeex trafic drogue ci biir réew mi la mu ca xamle nag mooy ni 338 plaquettes yu cocaïne daal di nañu koy teg loxo fële ca Koupentoum Euh, Anne, nous terminons la revue des titres avec Point Actus Sport, Tagat tagat yaram lañuy euh, tejé revue euh, des euh, titres bi point actu sport nak daldi addu ci ligue des champions CAF la mu ci xamlé moy ni FC daldi di défier le stade d'Abidjan ñom nak la bu d'Abidjan bu Côte d'Ivoire ci premier tour ñom nak la def Moy dóor leen ci jongante bu doon dox sen diggante lu mooy coupe CAF tournoi euh, tour préliminaire euh, kay bi dal dina ci addu euh, di wax ne dina dajé ñi nga xamante ni di les est end de Sierra Leone c'était tout pour la revue des titres du jour Fatim Diaye, ma jaajëfal la dañuy régie dem jëli jingle dellusiwaat ci plateau bi retour sur ce plateau de votre émission L'essentiel du matin. Nous sommes toujours avec l'équipe de la matinale, avec le chroniqueur du euh, jour, euh, Modou Koumba Modou Koumba, yaa ngi dégg sànq ci samay euh, wax may junju ni daañu à ci cette rencontre bi nga le président de la République war nako amal ak la presse sénégalaise ñu gis ni samedi Inch'Allah, allah lay doon attendu mooy attente yi nga xamante wala question yi nga xamante ne nga peut-être après 100 jours yo xamné ne def na au pouvoir wala trente euh, wala 3 mois yo xamantene ni nii def na à la tête du pouvoir war na ci mën a àddu. waaw euh, xam nga dafa am euh, Sénégal ci ben nuance bu mu nek nuance bi dafa dafa dafa dafa metti comme niñ ko mën a dafa metti parce que ben espoir la ben jeunesse amone ci ben ay leader politique. Mm-hmm. Diomaye président de la République sóoru loon moom ci bopam ni dina xey nek président Sénégal peut-être xamul lan mo waroon un ci kanamam ba mu war a programmer comment gouverner Mo am le premier ministre bo xamné mo nek ci wétam qui disait qu'il sait gouverner et qui mm. traitait tout le monde de nul Tay ñu ñëw ñom ñaar ci 100 jours mm-hmm.